Euh, Adam Gaye nak bu ko daal le du journal le Dakarois exactement euh, alors Arfan euh, Abbas Fall ñu koy si li en tout cas l'affaire Aziar nak batay mi scandale du siècle Abbas Fall mu daal milliards aux Espagnols pour exiger à Jean-Michel Sen d'écarter à pour Sénégal Fall s'est récemment payé une villa de luxe avec des centaines de millions liton. Euh, c'est plainte de nga xam ni Abbas Fall euh, plainte contre Adam Gueye et ki nga xam journal Le Dakarois euh, a déposé une plainte pour association de malfaiteurs diffusion de fausses nouvelles diffamation et injures publiques contre Adam Gueye et la rédaction du quotidien Le Dakarois cette plainte intervient dans l'affaire Azer ban jàngat si def euh, ginaaw ban écarté paw Sénégal coow loolu du woon na. dama ne ak 5 milliards yi nga xamni tam itam njortes ni le responsable de Dakar Passif encaissé nako il y a des choses qu'on ne dit pas qui le dossier agère dama lay wax ce qui se passe. Hmm. Sénégal jamono bi ni on a payé des gens pour ñuy wax ci dossier agère bi. Hmm. C'est ce qui se passe actuellement. Des gens ont, été, ont reçu de l'argent pour wax même lu ñu ça sax dañ koy wax. Ah oui c'est ça Le ñu gëmul sax dañ koy wax dañuy wax lu leen neex dama ne Abass Fall Abass Fall bu que dafa encaissé cinq milliards. Hmm. da nga koy prouver du da nga ne journaliste nga Adama Adama Gaye du journaliste la investigations. def investigation na la preuve sur table na la preuve sur la table ma leen information yaa ngi transaction baa je crois que le fournisseur jox nañ ko ay preuve yu sa source il est journaliste on parle de source hmm. source bu ko wax ni que Abass Fall dafa encaisser 5 milliards waxuma ni que lolu amna wala amul de dama ne bu source daf la informé ni que abbas Fall mi dafa encaissé empocher 5 milliards mais source bi warul yem ci jox la information daf la wara jox preuve nécessaire comme ça yow en ce sens que boko waxé ci presse Adama euh, comment de Abbas Fall dina la porter plainte du plainte ba ngi ni hmm. nañu dem ci kanam yoon. bu ñu ci kanam yoon mom le journaliste la Adama Gueye. Hmm. na am audace genné les preuves parce que yoon ay preuves la xam. yoon xamul ay xamul micro ay micro cravate wala di ne ñun journaliste yi de yoon xamul lolu de yoon keuyit la xam preuve da nga né Abbas Fall dafa encaissé somme bi ni léegi genné ñu preuve bi ana transaction bi. Mm. ana ki ko envoyé loolu. Mm. ana kii bi ana accord bi ana lan lañu ñuy déggoo loolu dang koy tek ci kanam procureur wa ila yo lañu yobu kasso kaso. Abbas Fall a bien fait de porter plainte tu sais pourquoi. Mm. sinon ça va continuer de faire du bruit nañu dem ci kanam yoon yoon leral ko point malou la laa gëm Abbas Fall dafa dafa il a bien fait de porter plainte. aadama Gaye ñu dem ci kanam yoon ñu layal seen bopp ku am dëgg yoon jox ko dëgg. enfin scandale. non man loolu laa gëm. scandale du siècle la de en tout cas. lépp ah, lu si mën ah, a am parce que dossier Azer ah, bi boobu ba tey à po euh, Sénégal. dossier Azer boobu ba tey ñu ngi Sénégal en Hélène. po Sénégal. Hmm. bu perdee contrat bi parce que moom la. mais ak lu on parce que moi, la moom moo euh, local mais local c'est important. fallu le la N'anyo, nañu nañu nañu nañu def nañu def nañu def la part des choses. nañu def la part des choses gis nga nit bo demee bay wax ci dara dang koy maîtriser dang koy gëm ba paré da ngay wax na ngay wax deug nak di wax ci dossier AGER bi ni la majorité des gens ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Il s'appelle comment euh, L'ancien directeur de, de Ager. C'est d'où hmm. comment euh, qui, euh, Le plus jeune DG. Non, non, non, je ne, parle pas de l'actuel. Jean-Michel. Jean-Michel pas actuel. Bi. Okay. ancien bi Ancien bi. Seydou Kan, Seydou Seydou xawma lan. Hmm. I alimenter le débat parce que Danka C'est ça la réalité bu faites yéen da ngeen def ay surfacturation da ngeen def ay nakasudul sudul ba espagnol yi yem da ngeen def nakasudul sudul pour les khalis ci ñoom ñoom ils vont rompre le contrat ils vont rompre le contrat. c'est ce que euh, c'est ce que. c'est ce que AAPO EPC e espagnol yi ñoom loolu def. Ils ont tout simplement rompu, ils ont rompu le contrat. parce que dañoo jàpp ni que ancien directeur ASER bi Seydou xawma xawma lam hmm. dafa dafa doon def surfacturation dafa dem bay falsifier ay documents surfacturer ay fiscalité impo ne waa yi ni lii nga war a fay ci impôt loolu dossier yooyu yëpp da ko fi surfacturer pour lekk ci la société Bon, bon pare aussi de la surfacturation du poto yi poto yu Il pour électricité bi dafa surfacturation c'est ça la réalité alors maintenant si on veut rétablir la vérité ni fay ay nit nit dem ci presse bi non Abass Fall na nit def na lii Jean Michel le nouveau bi dafa dàq parce que lii la privilégié parce que c'est archi faux c'est diamétralement opposé man sa yàkkamti naa ñu yóbbu dossier AGER bi ci kanam yoon man loolu bëgg pour yëpp l'air. Mais il y a tellement de Il y a tellement de spéculation. En six mois, Azer, Onaz, et d'autres, d'autres. Est-ce que tu as mis de l'eau, Alphonse justifié exactement Vous faites que. Vous faites que. Euh, euh, vous faites que. Vous faites que. Vous faites c'est un crime. On va voir ça. Ah bon que. Vous nous Nous Nous Nous sommes Nous Parce que nous Pour nous, ils en font un crime. Daknit, c'est Sénégal crime là mala la wolatuma la lolou du crime c'est pas un crime ba ñom ñi togg tay diko def un crime parce que dañ fi jëlé Seydou kan mu dem jaxase nekk ci presse bi du jaxase lépp alors que du Sénégal et attention du du du Azer Sénégal moko ko dé espagnol yi ñoo rompre contrat bi ak mom mu tëb ba pare ñu ne AGR e, Sénégal ñun collaboré wuñu ak Seydou bii nii dàq nañu ko alors pourquoi ñu bëgg a jël affaire yëpp xëpp ko Jean Michel parce que il est jeune moo tax ma ne la ñii nekk di wax nii yëpp la majorité ay naafekk lañu c'est ay fekk lañu. mais avant balaa nga leen. ils disent la vérité non bàyyil ba ba yëf yi leer. dama ne yoon gis nga AGR bii nii bu demee ci kanam yoon. loxo dar gemen, man mako wax te man yàkkamti ñu jël le dossier de AGER la yobu ko ci kanam yoon pour yépp leer une bonne fois pour toute, parce que y a tellement de spéculation là-dessus. Hmm. man loolu laa gëm que ça soit dossier ONAS que ça soit dossier AGER bi nañ ko yóbbu ci kanam ci kanam enquêteur yi ñu xool. nañ ko yóbbu ci kanam enquêteurs yi yëpp leer. mais ak dossier ONAS bi ba tey tamit loolu tamit xaw naa yéex Arfan. parce que yaa a tellement de de non di ay nit sax dinañu toog di kàcc di wax lu dul dëgg nga yaakaar ni sax lu ñuy wax sa dëgg la dem ci presse bi di wax lu leen neex yow yaa ngi koy seetaan nga xam ni que waa jii lu muy wax nii ci dossier Azer bi maîtriser wu si dara mu ngi fen mais moom moom dafa fen a fen ba gëm sa ay fenam loolu mooy Sénégal di nga gis nitu toog ci plateau di wàcc dossier Azer bi. te leer ni que wax ci information ay fenn la mais moom malheureusement dafay gëm ay fenam. alors mi non exactement. moo dama ne nañuy gaawantu yóbbu dossier alors mi ngi euh, par rapport à ce dossier. yow nga def surfacturation tëjuñu la ci kasso bi. yow yow Seydou Seydou ki mais na ci di tankal ñi ñi. légui bañu démé ci kanam yoon. yow lañuy japp jàpp tëju la ci ci kasso bi. est-ce que duñu essayer pour trouver ay ay ay piste de solution diggante que PAO Sénégal ak li nga xam ne que moo di Asia concrètement Arfan parce que tamit jiital local yi moo jiital le Sénégal ak ñi fay liggéeyee. j'ai toujours accepté ñuy jiital entreprise locale yi. Hmm. man yag na ko kaas dama ne bu nous amee des marchés de référence marché référence yi ñuy jox tubaab yi yépp man d'accordu ma ci ànduma ci marché référentiel da nga koy njëkk proposer l'expertise locale même bu ñu amulee sax financement nga booster leen nga booster leen jàppale leen. ñu doxal ñu doxal man j'ai toujours prôné pour ça je suis un nationaliste Seigne Fallou. Hmm. man je suis un nationaliste moi tax Tahirou Sarr yooyu moom Tahirou moom. ñii taxaw nii di saaga Tahirou Sarr man. j'ai défendu Tahirou Sarr parce que dama jàpp ni maa ko Tahirou Sarr ñoo bokk vision. doon ko xaar si liste de moom. boo demee Amérique dañ lay ne Amérique first Amérique first. Afrique d'abord fii Sénégal d'abord. dama ne boo demee Amérique. Hmm. États-Unis les Américains te diront que Amérique first America first. donc Sénégal Sénégal. Sénégal ngay gis fii bu la nee Sénégal first. léegi ne non il est raciste. Diou raciste le, diou siisumaan le. gis nga Tahirou Sarr lu mu wax. ñu ne ko non Tahirou raciste le. pourtant Tahirou Sarr lu c'est wax ce qu'on voit dans les pays développés. privilégier d'abord l'expertise locale. Dieu hmm. me jàppale L'entreprise entreprise locale yi au Sénégal. les les les les comment les bailleurs bailleurs yi au Sénégal ñu mën leen état mën leen jàppale encourager leen man loolu gëm que ñu jël les marchés référentiels diko jox tubaab bi diko jox France diko jox ñan ak ñan ak ñan c'est là où je ne suis pas d'accord. Ah. maintenant bu féké yo entreprise locale nga nga bëgg ñu jox la marché da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay comment adresse euh, euh, euh, da ngay tënku ak sartu les Sartes. alors c'est clair mi non enfin mi non da ngay tënku ak sartu ah, bah, maintenant yow noy beugé ñu jox la marché ba ay yow ngay def ay surfacturation wala yow sal dara matul nga fokk ñu jox la marché par force wa nga Sénégal dañ may jox marché bi wa fay ay ñu ci presse par rapport que justement euh, Jean-Michel ak autour de l'affaire euh, Azer ak plainte bi à la dernière minute contre Adama Gaye ak le journal Le Dakarois. Alors, on se quitte, enfin, avec... Euh,